Euh, ziar ak màggal la grand champion borom euh, euh, tund jendeer bi mooy Tony Junior ñu ngi lay kontaan. waaw bisimilah ginnaaw mi sant yàlla julli seen du salaam di nuyu waa wasaare baa Djili maa ngi koy bu baax a baax a baax parce sama baa Djili la quoi parce que wasaare am na lu ma leen waxoon yaakaar naa arène nationale nee naa leen sa kaw sa kanam incha allah te day dox incha allah ah di la ziar bu wér tamit yaakaar di ñëw fii xam sali fekk si leen fii ah di am bu baax a baax a baax jërëjëf waaye tey jii nan nga gisee li nga xam ne moo Ahlou Lamb Sénégal initiative bi ñuy def di décorer les meilleurs nga nekk benn jeune boo xam ne yaa ngi yëngu si làmb rawatina lutte simple lan nga si mën a sànni si bis bi. waaw lii dafa rafet lii dafa rafet Ahlou Lamb Sénégal tey mu ñu wan ni ñoom ñu ngi doxal làmb si kanam xam ma lépp loo xamante ne làmba mu ngi koy def si avancement rek ëxu làmba Sénégal ñu ngi teg seen tànk di remercier grand alfali di remercier suñ grand ambulance ñoon Abdou Gamaay parce que gis nañ sonn nañ si affaire yi taxawaay bi ëxu làmba daal di leen wax jeunes yi nga xam ne bokkaguñ tamit ñu ñëw xam ni ëxu làmba moom luy dox sa kanam la te lu jëm sa kanam la parce que ñun jeunes yi ñoo ko moom waa di remercier gars yi ñi bokkul tamit ñu ñëw xam nga jéema a bokk si ëxu làmba parce que am na njëriñ am na solo quoi am na mais tey jii nii ñu bëgg a xam man boobu ba tey dama laa gisul waaye dinaa ko laaj fan nga jaar keroog 3 euh, millions Yaxya Jóob yi kii nii fan nga jaar ba dem ba daje Boy Bawol numéro 2 demi final fan nga jaar laa bëgg a xam. waaw 3 millions yi kii nii ban jour la woon n'est-ce pas. ban stade la woon. stade euh, Caroline Faye. ah nga dëgg mooy bi ma booy Boy Bawol. Boy Bawol yow est-ce que Boy Bawol daanu yéen seetaan ngeen làmb bu baax mais Boy Bawol man bi ma demee ba kër gi waaw wasaare. waaw waaw wasaare laay dénk loolu ñu xoolal ma man bi ma demee ba kër gi bi ma toogee ba seetaan làmb ji booy bawol avant maa toog booy bawol dafa dóor yi yëpp. fes bi daa laal di yëpp dafa dóor ba si ngembale après si laay doog a dal. si laay doog dal. si laay ne si biir combat bi nga ko seetaanaatee yaa ko dal. non booy dama li ma tee dugal ruku. yàlla seere nañ dama ko rëccu. waaye comme que validé nañ daal bàyyi kaa moom ba ma ko nangu nag na xam ni du ko nangu waa booy bawol na xam loolu xam ni tamit retour bi mënul yomb de mënul yom te combat bi bi ñuy ñëw boobu ñun xale lan ama boo gisee mbapet boobu ni mu demee parce que xam na ni suñ poids matul matul poids lourd parce que yàgg naa booba maay peese 82 kilos mais dama bàyyi ba poids léger bi fees ay te booba ay 11 heures la si mbuur mën na bëdu ba 4 heures 5 heures may doog a génn dégg ñuy poids léger bi fees na sa une heure ma doog a génn ñëw samp poids lourd poids lourd bi gars yi waa CNG bi ñii ni poids bi ma leen ni lan di nuyu daraame bu baax a baax a baax ni leen yéen xamu leen tooni dugal leen ko si poids lourd bi moo taxit ñu wane suñ jom bëgguñu woon yem foofu noonu barki alxuraan karim am na leneen lu bëggoon incha allah wane ko fa te loolu noonu dafa feeñ. dafa feeñ moo tax man loolu du dara. pare gis nañ ñu dëggal la combat Dakar nga dóor waa ji mu wàcc nga dabu ko daal di koy fekk foofu rek fël ko. waaw loolu noonu nañ nañ ko mën a jàngatee en tant que lutte simple euh, lutteur boo xam ne si simple lañ ko gën a xam mu ñëw dóor mu daanu. waaw ñun nag c'est que Tony Tony Tony si Tony bu mag Tony moo mooy suñu mag. te yaakaar naa deuxième combat am da kaa dóor mu daanu muy Cheikh Niang bu Thiès Cheikh Niang kenn daxu ko woon a xeex man donnaguma sama mag parce que sama mag lépp lu muy def lu dul lépp lu muy def rek xeex rek leen def man donnaguma maay ñëw di mbapet di nii nii nii nii mais xeex laa ma dax xeex la ma dàq am na benn mbër ma doon posé Koña 2 maa ngi dégg fan yi muy net di wax ak moom Baye Djili mais Koña xam nga moo tax moom dafa baax parce que Koña ñemewu ma yàlla seere na Koña bu jofee ba jël avance tuuti si ñor dama koy dóor mu daanu. bu dee mu may dégg moog baa jiile bu ñu jëlee avance ma dóoreel ñu daal combat boobu du ñoom ñoo ko soxla man man ma laaj koo ñaare amateur yi ñoo ma woo ak promoteur yi ay promoteur woo ma ne ma koo ñaak koo ñaak combat la man loolu laa am. ma leen nii man mbër mu pere pere naa maa ngi fi pour mbër yëpp mais dégg naa ko mu wax du ma sa moroom yooyu noonu koo ñaa lan la fi def koo ñaa neuf combat la am euh, sept victoire deux défaites man ma am sept combat sept victoire waaw léegi ku am sept victoire lu ma bañ combat yi ma jaar koo ñaa du fa jaar. combat man combat soog rek laa jaar amul benn combat bu mu biri sama sama morom xanaa sama premier combat mais si des yëpp parce que ñu ngi may gën a diis ay 10 kilos ay 10 kilos mais Konia xamul loolu. billaahi maaka man. kon daal déggee li mu wax euh, Basirou mooy buñ ko joxee Konia doo mu dóor ko mu wàcc. maaka ko ëpp mbooloo maa man. combat bii jàll le huit bii jàll avant gars yi ñëw dama duy stade bi ba mu fees del barki leeru arxuraan jamay kee mu may dégg xaarim anta mi yoroon biyee yi mujj ma gën a joxalaatal sama booy biyee te yàlla xam na li ma wax bu baax a baax Konia maa ko ëpp mbooloo man la amateur yi gën a bëgg man mii nekk na xam loolu bu baax Konia siiwul kenn xamoo ko drapeau chef de l'État la dem benn année rek ñëw di baax di wax ñun liñ def rus nañ kaa wax na bàyyi tiitaru bi te biir ak morom yi dégg naa muy laaj paa yi xam nga Sénégal li ko yaa xam mooy par waa mbër day ñëw exploité rek ñu jox ko ay paa yooyu noonu te war a jaar fi yoon bi nañuy jaar si yoon bi. combat sogi man yow laa àndal ndax damaa bëgg mbëri di jël bërënte seen biir te bàyyi paa yi ñuy dajel maa ngi dégg muy laaj ay Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 mais Koña na ñëw jël moromam ñu xam ni Koña mbër. Koña 2 sa morom a ngi nii Tony Junior borom tund jandeer bi ñëwal jël ko ngeen bëre mais en tant que Akhlam Sénégal di décorer les meilleurs yow mën nañ laa xaar si journée yi tamit bu ñuy décorer ëllëg ah, Tony Junior bokk bokk si ñi nga xam ne ñoom la ñuy décorer. waaw man Akhlu Lamb Sénégal lépp lu ñu woote rek maa ngi ci biir balañ maa woo damay ñëw waxatuma nag ba ñu woo ma grand alpha li xam na li ma ko wax baax. parce que for na bi man Akhlu Lamb Sénégal mais Baye Djili maa ngi siyaare borom wasaare kooku sama Baye Djili la gars yi comprendre lan wasaare daal sa kaw sa kanam incha allah waaw sa kaw sa kanam ndax ñu ko séq ay Baye Fall la ñu leen di